mbokki internet yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax di leen dalal ci seen site Carrefour Média TV lëkkaloo ak C-Média TV euh, ñëwaat nañ ci seen émission euh, notre choix tey jii nag ñu fekk si ki nga xamante ni mooy euh, Mouhamed Fall bokk ci bile mouvement di ànd soppi Thiès bu Madiakhate ña tey jii nag ñu fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ni mooy doxalinu mouvement bi bala ma sori dama koy bàyyi mu nuyoo Mouhamed ñoo ngi leen nuyu bàyyi la nga nuyu ak ñi nga xamante ni ñoo lay seetaan. Euh, ñu ngi leen di fay di leen nuyu bu baax di nuyu mbooleem ñi nga xamante ni ñu ngi seetaan di nuyu seen télé bi di sant bu baax a baax ci jóg bii nga xamante ni jóg ngeen ko ngir ñëw taxawu li nga xamante ni ndax lii ngeen di def leen rek moo ko waral muy dëkk bi kenn ku ci nekk xam lan mooy sawareef kenn ku ci nekk it xam ban taxawaay nga am kon ñu ngi lay fay nuyoo. Euh, ñu ñëw fii tey fas yéene waxtaan ak yow li nga xamante ni mooy mouvement And euh, Soppi Thiès euh, bala loolu rek ñu bàyyi nga présenté wu ak casquette bi nga xamante ni moom nga yor ci mouvement bi. jërëjëf waaw ñu ngi santaat bu baax ci question boobu nga xamante ni posé nga ñu ko mu doon lu ñu neex ndax mouvement alternative citoyen And Soppi Thiès mouvement la boo xam ni benn yitte rek moo ko tax a jóg benn taxawaay rek moo ko tax a jóg ndax boo déggee li ñu la njëkk a wax muy And Soppi taxaw taxawaayu soppi bu la soppi nag. dangay xam ni kon li fi newoon moom dara baaxu ci loolu lañ jóg tey dajaloo ñun ñi nga xamante ni ñooy jeunesse su Thiès ñun ñi nga xamante ni cees lañ juddoo yaroo fi màgge fi lépp lu ñu am cees lañ ko amee ndax mouvement end soppi Thiès benn yitte rek la am benn bëgg-bëgg rek la am mooy li nga xamante ni maire bi war na koo taxaw def ko ñu fexe ba maire bi def ko taxaw taxawaay boo xamante ni taxawaayu maire la taxaw taxawaay boo xam ni taxawaayu wane ak di di di di di feeñal li nga xamante ni tey jii ni maire bi war na koo taxawu te taxawu ko loolu moo waral tey ñu créer mouvement ànd soppi Thiès ànd ko ak suñu président ma jaxate ña ñi ngay gis it jeunes yëpp yi nga xamante ni bokk nañ ci muy muy muy muy mag di di kum mën a doon rek ndax ñun ñi euh, yàlla dogal na ay jeunes lañu yoroon beneen euh, kii bu ñu nekkoon muy association association boobu nga xamante ni yoroon nañ ko tax di ko taxawu yàlla dogal ñuy dem di def lu ñu mën ak lu lu ñu mënul di nettoyer di def nangam nangam nangam ba yàlla sama borom dogal tey moom ma ñaa mu ñëw ànd si ak ñun wooñu ngir ñu ñëw ànd ak moom liggéey bi nga xamante ni tey dafa méngoo ak ñun association bi ñu doon woote loolu moo waral tey ñu bàyyi lépp lu ñu nekkoon ñun tamit ñu ñëw ànd ak moom ndax li ñu ne newoon ñun euh, association des jeunes pour l'avenir de Thiès la woon l'avenir de Thiès kon bu ñëwee woo la ni la kaay ñu ànd soppi Thiès kooku it dangay xool moom ban taxawaay la am ci dëkk bi ak nan la nan la bëgg a doxalee dëkk bi ndax fi nga ne ak fi mu woon benn la ngeen jóg ànd ci loolu loolu moo waral tey suñu intégré bi ñu ñëwee it ñuy dox di dox di dox di dox ba yàlla dogal tamit ñu dénk ñu coordonnateur des activités ñuy ànd di liggéey di dox boobaak léegi fi ñu toll activités yu baree bari yoo xamante ni yàlla dogal na koy taxaw ndax ci wàllu jeunes yi tamit ñoo fa féetewaat leen magal di leen magal ci côté boobu ñu ciy dox doxin woo xamante ne doxinu am solo la di ci di di ci dox daal doxin woo xamante ne daal soppi rek moo ñu tax a jóg. Euh, boo déggee baatu soppi yéen saa yi day mel maanaam day fekk ni que mbir mi moom moo jaarul yoon euh, yéen mouvement ngeen yor à travers seen mouvement euh, yan réalisation yi nga xamante ni jot ngeen ko def ci biir askan bi. waaw réalisation yi nga xamante ni jot nañ ko def ci biir askan bi bari na ndax lu ci ëpp tey bi ñuy doog a door ñu ngi tàmbalee ci ay nettoyage ndax nettoyage des fois nga wax ko nit ñàkkal ko fayda. ndax tey jii bu fekkee yàlla dogal na ñu jóg dem ci euh, terrain boo xamante ni dañ fay fubbale ñu di fa sotti ay mbalit loolu bu ñu demee euh, ci kanam tuuti rek fii ci euh, ci Silma am na fa terrain boo xamante ni dañ fa daan sotti ay mbalit nga xamante ni xale yi dañ fay football di fa daw di def lu ne di fo di fa gaañu ñii di jël ay micro di ko yóbbuwaat seen biir kër yi yooyu yëpp ñu jóg ni mouvement bi kon ginnaaw ba yàlla dogal na doole ji nu war am dëgg-dëgg ngir lu ñu bëgg taxawu ko yenn taxawaay amuñu ko waaye am nañ suñuy dooley bopp nan dajaloo dem di nettoyer yi nga xamante ni mooy dëkk bi. topp di nettoyer nettoyer ak lu mel ni course ba ni mu meloon foofu ku fa dem gis ni tey ji mbalit ma fa newoon kay kenn xamul nu mu toll mouvement bi di jóg ci dox loolu jógit di ànd ji di di di di dimbali xale yi nga xamante ni yàlla dogal na tey bu école tijjee seen seeni seeni i seen i seen i loxo jotul seen i ginnaaw ñuy fexe ba di leen jox ay forniture fexe it ba hôpital yi nga xamante ni des fois dañuy soxla ay sang ndax banque de sang yi ku ne xam na ni dafay manqué lu baree bare baree bari euh, li nga xamante ni moom mooy sang mouvement bi day day créer ay ay ay ay activités yoo xamante ni pour ay don de sang lañ ciy taxaw di ko ci def. nga xamante ni yooyu yëpp mouvement bi ñu ngi koy taxaw di ko def ngir taxaw tamit taxawaay boo xam ni jeune yi nga xamante ni ñu ngi fiy nekk ndax Sénégal dañuy faral di wax naan. Sénégal dañuy faral di wax naan euh, ñi nga xamante ni ñooy ñooy doomu buur yi ñoom chaque jour ñoom ñoo ñuy jiite di dem di dem mouvement bi dina fexe jàngal ndaw ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo féetewaat fii xamal leen ni kat yéen waru leen a toog rek di xaar naan ñee ñoo ñu jiite tey ñoo ñu jiite suba ñun dañoo war a jóg ñun ñi ñuy woowee doomu baadoola yi jóg taxaw taxawaay boo xam ni tey dinañ taxaw taxawaay boo xam jàngal leen ëllëg nan lañ war a mën a fexe ba yoral seen bopp lépp ndax dañoo sonn dañoo maar ci ñuy du ñu jiite ci taxawaay bi ci façon bi ñu ñuy jiite. bon sànq ci seen njëlbeen wax euh, junj nga ñu wàllu mairie kon donc seen mouvement da ngeen a bëgg maanaam accéder ci mairie bi mais est-ce xam ngeen dëgg-dëgg lan mooy dayooy par exemple ñëw diriger mairie ndax mairie am na ay marché am na yeneen lieu public yoo xam te maanaam mairie moo koy saytu est-ce maanaam tey bu ngeen accéder ci mairie bi ndax ngeen ko nar a taxawoo waaw loolu moom euh, na ci seen xel daal ndax li tax ma wax loolu mooy euh, mouvement bi euh, mooy ni ma la waxee ni la ñoo jàngal nan la ñuy gérer suñuy bopp d'abord ñun nit ki ndax nit ki balaa gérer dara day fexe gere boppam ba pare léegi ñun dañ ñoo jàngal nan la ñu war a mën a gérer doxul ñu rek ci intégré kese mais lu ñu intégré dañuy fexe pour gérer loolu ndax maire bi tey ñi ko yor ku ne xam na ni tey bu fekkee xam-xam rek tey ñi ko yor ñàkk xam-xam moo waral tey muy doxe nii muy doxe ñak xam-xam mo waral tay bo dem marché tay ji ku ci lu ci melni falanek, marché Xelcom bi sama kër fa la nek tay marché bi ku ne gis na ni mu mel tay lool waxuma la sax nga koy jox non waye tay bo tannon benn nit rek jox ko financement niko fexel ba marché bi nay set fexé ba nañu fexé ba defar fi ay cantine yo xamanteni ay loolu dina ci taxaw taxaway bu am solo rawatina nag nga jël maire bi nga xamanteni bobu da nga yor ay bankas yor ay mbir yo xamanteni nii fo feug ngir defar lool rek day daldi day daldi feñ ñun paré nañ ci côté yépp pare nañ ci côté yëpp looloo waral tey comme ni ma la ko waxee nga xam ñun ay jeunes la ñu woon ñëw taxaw di di di di doxal di xool li nga xamante ni moo baaxul ñu di ko fexee taxawaay tey noonu la président ma Mademba Niang woowee ñu ñun nu ñu kat benn yitte kese laa amoon benn bëgg kese benn bëgg-bëgg kese laa am mooy ñii ni ñuy doxalee gestion bi baaxul. nañ mais ci ban côté exactement moo baaxul. Euh, côté yi baaxul bari na ndax jox naa la exemple ci mairie bi li ci des tey bari na éclairage bi dëkk bi ku ne gis na ni mu lëndëmee tali yi. gis nañ ni nettoyage bi ñu ko war di nettoyer tali bi dangay ngay dem bu mujj dootoo gis goudron loolu yëpp taxawaayu mairie la te mairie bi tey defu ci dara amul lenn loo xamante ne tey jii mairie bi moo ko waroon def te defu ko marché yi poste de santé yi yu ci baree baree bari yoo xamante ni maam mairie bi daal maam bu mënuma laa ni wax man man sama jëmi bopp man mi dëkk ci SS ndax sax am na des fois ñu xaw a changé tuuti parce que bi mouvement bi taxawee avant muy taxaw daawuñu def dara daawuñu taxaw benn taxawaay daawuñu ko def mais mouvement bi da di jañaxal tey des fois ñu luye euh, course ba tey def fa foire bu ñu paree au lieu que yu nettoyé ko mais duñ ko nettoyé mouvement bi day jóg tey dal ci seen kaw. bu mouvement bi jógee dal ci seen kaw ñu profitoo gaaw dawoon nettoyé nettoyé noonu dajale dem toog na le ñun mouvement bi loolu mooy suñu loolu mooy suñu objectif li nga xamante ni baaxul ñu fexe ñoom ñu def ko. bu ñu demee nag topp leen ba mënuñoo def ñun dañoo taxaw tey taxawaay boo xamante ni tey ñun bu ñu joxee ñun ñun ñu def li nga xamante ni tey moom la ñu askan wi di laaj. Euh, mais commune est da di zone boo xamante ni zone bu sensible la la plupart ñi fi nekk euh, ñii ci mouvement civilisation lañ bokk euh, gis nañ seeni action mais mouvement ànd soppi Thiès ci taxawaayam est que tey ji maanaam war na mën a ñëw supérieur ñooñu ci côté maanaam doxali waaw moom la koy wax sànq ci samay biir yi wax ndax àdduna lépp loo gis gëm-gëm la. képp koo xamante ni jàll na rek ci gëm-gëm rek nga jàllee ndax tey bu nu gëm nii rek bu ñu amul xaalis waruñoo mën a changer dara ndax loolu moom moo ñuy lor saa su ci nekk ñoom ñoo ñu ngay wax tey dañ ñuy jënd ñun saa su ne mais ñun fi mu ne sonn ci jënd googu ñu ñu doon jënd tey moo waral tey ñu taxaw ni ñoom li ñu mën ñun pourquoi par ñu taxaw laaj ko defal ko suñu bopp ndax nit du yàq alalam li nga moom doo ko yàq mukk keneen yooyu jóge ci àll bi ñëw di yàq loo xamante ni yéen ko bokk wala loo xamante ni moom amu ca sax soxla yenn soxla yooyu ndax ñoom benn tey bu ñi ngay wax noonu ñëpp tey nga xam ñi bokk nañ ci gouvernement bi ñi nangam ak nangam tey benn yitte rek la ñu am mooy su élection jegee ñu ñëw taxaw bu ñu taxawee may ñu ay 2000 ay 5000 jox ñu ay t-shirt nangam wooteel ñu mais kooku li may wax saa su nekk mooy yow mi nangu loolu ba jël ko yow fay nañ la ba pare yow taxawatoo taxawaayu am liggéeyal par la force ndax ki la fay saa su ci nekk moom fam lay jaarloo rek fa ngay jaar ñun nag taxawaay boobu tey lañ fi bëgg a jële taxawaay boobu lañ fi bëgg a jële moo tax ma gëm ni kon tey ñun li nga xamante ni ñoom ñu ngi koy def ñoom la ñuy def sax daa baaxul moom ñun soxlawuñoo def loolu ñun li ñu soxla mooy ñun bu ñu ñëwee maanaam changé ak li tax askan wi yëkkati ñu fal ñu teg ñu fi ñu fexe ba loolu noonu askan wi seen xol di ci seet ndax ñun ñu ci biir askan wi fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañuy ñuy màgge lépp loo xamante ni tey ñu ngi koy def te baaxul ñu ngi koy dund ñu ngi dox suba ngoon guddi ak bëccëg kon loolu moom euh, awma lu ma ciy sikki sàkk ci ni moom mën nañ lu raw loolu. Euh, bon mu mel ni yéen a ngi lëkkaloo ak euh, ki nga xamante ni mooy Demba Jaxate su ma juumul moom mooy seen leader boo moom lan mooy particularité par rapport ak yeneen ñi nga xamante ni ñu ngi kii. Demba jeune la boo xamante ni jeune boo am engagement la doon koo xam ni mooy ni ma la ko waxee fii la defee léppam fii la jàngee ndax école Silema bii la jafee primaire am jóge fi dem defee sem jàmm gën fa la ko defee jóge foofu dem lycée bi mu jógee lycée it dem université yàlla dogal mu def concours ENAM jàll commencé di liggéey jëlaat léppam indiwaat ko fii nga xamante ni demul di wuti lenn fenn dafa ñëwaat servir nation nation nga xamante ne tey jii ni moom benn taxawaay rek la am benn bëgg-bëgg rek la am tey mooy li nga xamante ni jàng na ko mu sotti ko ci dëkkam bii nga xamante ni fi la ko defee loolu moo waral tey tamit mu mot loolu am tax ñu am motivation wu mën a ànd ak moom xam ni toon moom lu mu bëgg nit koo xamante ni am na bëgg-bëgg nit la koo xamante ni benn yitte rek moo ko am moo moom la bëgg muy li nga xamante ni mooy dëkkam. amul lenn loo xamante ni maanaam génn na ko fii dafa doon koo xam ni euh, mooy li may wax saa su nekk boo doonee xale naan su ma màggee su ma yàlla defalee nangam nangam rek laay def ndax nit bu amagul mënoo koo seedeel dara. mais tey muy dem di doxal lool di doxal lool ba yàlla dogal tey la mu bëggoon donte amul lépp waaye li mu jot a amaku si néew mu ne kaay leen ñu taxaw taxawaay boo xamante ni dinañ ci defar suñu dëkk. ndax génn naa gis naa yeneen ville ni mu mel te loolu bu nu gëmee suñu bopp mën nañ koo defal suñu bopp en commençant par Thiès ndax bay ci say wewi tànk ñun lii ñuy def nii maanaam man dama ciy lancer appel Sénégal jeune sénégalais yépp maanaam ñu bàyyi politiciens yi nga xamante ne ñu ngi leen di topp ñu di ñu nax chaque jour ñu fexe ñun créer suñu bopp comme mouvement ànd soppi Thiès ni ko taxawoo tey man gëm naa ni mbooleem raison yi nga xamante ni nekk na ci Thiès war na faa mën a am. ay jeunes yoo xam ñoom ñooy jóg taxawu li nga xamante ni tey bëgg nañ ko tey demba lii mu ñu woo tey ñun bu ñu xooloon ndax ñun duñu ay dof ay magi jëmu lañ am nañ loo xamante ni tey ñu ngi koy dund tey bu ñu doon woo ci leneen wala ci li fi nekk muñ ciy woo mën nañ ko cee bañ a wuyu si waaye dañoo dëkk ak moom xam moom mooy kan yaroondoog moom xam lan la bëgg xam lan mooy bañ ay bëgg-bëggam tamit mu dëppoo ak suñuy bëgg-bëgg loolu moo waral te ñu ànd ak moom muy dox ci social aussi social bi muy dox tey mooy li ma la wax sànq tey gis nga xale yi tey bu bu ñuy bu ñuy bu ñu bu ñu waree jàng te néew doole mu yëkkati alalam jox leen mbas mi tey bi mu amee li liñ ci mën donte li nit ñi def la ñu deful mooy di dem di joxe di médiatiser di wane te pourtant nit ñi dañ naan loolu mooy politique mais tey ñun li ñuy def yàlla moo tax ñu di ko def moom ci loolu la ñu woo kaay leen ñu def te yàlla tax li ñu am nañ ko bokk def ko bu ëllëgee bu ñu joxee li nga xamante ni moom la ñu war moom moom la ñuy laaj ngir ñu defaral askanu ñu defaral suñuy mag defaral suñuy nijaay defaral suñuy baay defaral suñuy bàjjan. ban programme moo ne seen kanam. programme mouvement bi moom mooy <laughs> fi mu toll nii ay actif bari na ay activités yoo xamante ni ñu ngi koy taxaw jamono bi ñu toll. Euh, nii may waxee ak rek bi école di waaj a tijji commencé nañ di nettoyer école yi. commencé nañ di nettoyer école ci suñu dooley bopp euh, am na it yeneen programme yoo xam teg nañ ko mu nekk ci suñu kanam. ñu ngi xaar tamit élection yi nga xamante ni mu ngi suñu kanam. ngir jóg gën a waxtaan ak ñi nga xamante ni tey ñooy askan wi ndax visite de proximité yi liñ ci doon def ngir xamal nit ñi bari na waaye nii may waxee yow ñu ngi jógaat ngir amaat yeneen visite de proximité yoo xamante ni dinañ ko defaat jëm ci biir askan wi ndax li ñuy wax saa su nekk ab maire dafa war di jege askan wi maire warul doon ko jafe ci askan wi ñun loolu la ñuy fexee liggéey suñu programme fi mu toll nii mooy jóg ngir waajal li nga xamante ni tey moo nekk ci sunu kanam muy élection yi nga xamante ni mu ngi jub si te jàppaguñu bis bi bu ëllëg bu bis ba jotee incha allahu rabbi ñu taxaw ci taxawaay boo xamante ni laaj maire bi ñu jox ñu ko ñu liggéeyal askan wi. sa kàddu gi mujj mooy sama kàddu gi mujj mooy ñu ngi sant bu baax a baax. di leen sant yéen tamit ci li nga xamante ni tey euh, def ngeen ko jëkk bàyyi seen i te ñëw ànd ak ñun ngir lan ngir leeral li nga xamante ni moom moo. Nek ci dëkk bi ngir tamit engagement yi nga xamante nit ñang koy am ngeen diko wané ngir ñu mëna partager wu ci Sénégal gi yépp ñu ngi leen ci sante di leen ci gërëm di sante président Demba Niang ndax tamit wax dëgg yaal ni ma waxé sa sa su ci nek rek moom ndaw la lo xamante ni askanam rek moko ñor ndaw la lo xamante ni dëkkam rek moko ñor ndaw la lo xamante ni it dimbali nit ñi rek moko ñor kon yalla nako yalla sama borom defal tawfiq defal ñuko tawfiq defal ñuko ñun ñepp mbollem ñi nga xamanteni ñu ngi sétane ñu ngi leen di sante bu baax di leen gërëm alaykum wa rahmatullah Euh, Mbokuy yi notre Soir ñewon seet si euh, mouvement euh, And Sopi Thiès bu Demba Niang ki nga xamanteni moy Mustapha Fall nekkon ci manam côté waxukaay bi mom moy le chargé des activités di leen jox dig dajé inshallah benen yoon ak benen invité ci notre Soir jërë ngeen jëf.